بسم الله الرحمن الرحيم وصاحبي صارم في متنه مثل مدب النمل يعلو في الربا أبيض كالملح إذا انتضيته لم يلق شيئا حده إلا فرا عمقت الدرس بويسون دا وخوني أزال حشو نثرة موضونة حتى أوارى بين أثناء الجثة من دمدن دي سول مبام كون منيو رفتي منيو قرنية أقربم di tagg ña nga xamante ne ni ñoo doon sang ya bokk ci giir Yasjub giir Yaarub ibnu Yasjub ibnu Qaxtaan nga xam ne ñooy arab piir ñu dëkkee woon Yaman feek bañ may robee ci biir suuf si mu ne nag wa saaxiba ya ak sama ñaari àndandoo saaxiba ya dañ koo xas dañ koo dañ koo daaf ci xaswa moo tax ñi nasab ko wa saaxibayni azaalu xaswa nasratin wa saaxibayni waaye comme niñ ko xamee mudaari jamu ak tasniya jamu ak tasniya bu ñu daafee dañuy xasaf seen nuun yi moo tax ñu wa saaxibayya wa saaxibayni ñu xasaf nuun ga noonu tasniya ga muy wa saaxibayni moo tax mu ne wa saaxibayya ak sama ñaari àndandoor yi mooy jaasim ji ak fasam wi mu ne ñaari yooyu tamit du dañ di ànd ak ñoom ba bañ koy robee biir suuf mu ne ak sama ñaari àndandoor ya ñaari àndandoor yi nag benn ba moom la wax ne saarimun jaasi ju mën a dagg la saarim moom la ñuy jamu sawaarim mooy jaasi fii mat nii nekk na ca wàllam nga mat na lu doon firi gi mooy ginnaaw waaye fii mu ngi ko jublu ci wet gi rek wet jaasi ja fii mat nii nekk na ca wetam ga mooy wàllam nga mitlu ma bi nam li comme yukkatuwaayu xorondong yaalu boobu dana yëkkatiku dana kawe fi ruba ci tund yi ar ruba jamono ci ar rubwatu wala ar rabwatu bil fatxi wa bi dammi bi dammi rai wa fatxiha moom la yàlla di wax naan kamathali jannatin bi rabwatin am na ñuy jàng tamit bi rubwatin ñu koy jama ak ruba mu ne sama ñaari àndandoor itam du ma dañ di ànd ak ñoom muy sama fas wi ak sama jaasi ji jaasi ja nga xam ne ca wàlli jaasi ja mooy wet gi mooy côté côté bu yaatu bi xam nga duut catli waaye wet wetu jaasi ji waaw mooy côté bu yaatu bi mu ne nekk na fa comme yukkatuwaayu xorondong xam nga jaasi ci wet yi jaasi yu baax yi ñu daan day am ay rëdd ci côté bi léegi nag rëdd yooyu noonu di am si kaw jaasi ñi moom la niraleeg xorondong boo xam ne yéeg ci ab montagne aw tund di fa jaar xam nga foofu da day am ay rëdd rëdd yu sew sew yooyu moom la niraleeg yukkatiku yukkatuwaayu xorondong mooy jaaruwaayu xorondong xam nga dab ba mooy firi yukkat na mooy dox comme ni xorondong di doxee boo ne madab nag mooy fa muy jaar moo tax mu ne wa saaxiba yi ak sama ñaari àndandoor ya benn ba saarimun jaasi jee aji dagg la saarim moom la ñuy jamo sawaarim fii mat nii nekk na ca wetam ga mooy wàll ga mitlu madab bi nam li comme yëkkatuwaayu xorondong yaalu boobu dana yëkkati mooy dana kawe fi rubaa ci tund mooy xorondong bu yéeg ci kaw ay montagne di fa dox jaar-jaar yooyu noonu mooy rëdd yu sew yooyu noonu moom la jaasi ji am ca wet ga mu ne ab yada jaasi jee aji weex kal milxi ba mel ni xorom idan tadaytahu jamono boo ko boccee mooy boo ko génnee ci mbaram lam yalqadu dajeeg moom jaasi ji chey an dara xadduhu ñawkaam illaa fara lulul dagg na ko mu ne jaasi la joo xam ne daa weex tàll mu ne heure boo ko génnee ca mbar la dal di koy dor dara mune lolo day dag ci sasi moy loko dor rek mu dal di dag kon jasi ju ñaw la mu ne ka anna bayna ayrihi wa garbihi muftaadan taakkalat fihi ljuza looloo ci topp mu ka anna bayna ayrihi daa mel ni nekk na ci diggante cittam la waxar bi ak kaam ga mufta adan taaluwaay am na ñu koy firee furno waaye mooy taaluwaay rek lépp loo mën a taal mën naa bañ nekk furno waaye taaluwaay boo ko waxee moo gën a yaatu mufta adan taaluwaay te akkalat lekkante ne fii ci moom aljuza nganji ya aljuza jamono ci aljazwatu mooy matt gu dijji mu ne ca diggante cittam la citt mooy côté gi dul dagg jaasi ji xam nga daa am foo xam ne mooy ñawka gi mooy xar mooy ñawka gi bopp bi nag nga xam ne mooy fii dul dagge loolu la ñuy tuddee euh, alaayir mooy alaayir mooy cittam la mu ne nag ci diggante citt li mooy côté bi dul dagg wa garbihi ak côté bi dagge mu ne nekk na fa mufta adan taaluwaay maanaam foofa dafa leer naññi lerax ba mel ni sax dañoo jëloon ay matta taal ko fa matt ya di fa tàkk maanaam na jaasi ja di leraxee ak nam leere ci diggante citt li ak ñawka gi mu ne daa mel ni ab taal boo xam ne ay matt yu dijj ñoo fa nekk yu tàkk waaw ni muy leraxee noonu safara wa di jóg kon jaasi ji noonu lay mel xëtee moo tax mu nekk anna bayna ayrihi daa mel ni nekk na ci diggante ci tëm la wa garbi ak ñëw ko am nga muftaadan taaluwaay mooy ab taal rek ta akkalat nga xam ne ma ngay lekkante wala ta akkalat lekkante na fii ci mu aljuza nganji ya yuril manuuna xiina taqfu ithrahu fi zulami al akbaadi sublan la tura mu ne yuri day wan moom jaasi ja almanuuna dee almanoon mën nañ ko <clears throat> euh, góoral comme mën nañ koo jigéenal comme niñ ko jànge woon ci ci daaliya waaw inna almanuuna hiya sabilu gis nga foofu nee na inna almanuuna hiya sabilu fa man yakun lam yantahiju bi rahli fa ka anqadi fii mu ñëw ne yuril manuuna kon dañ koy góoral di ko jigéenal moo tax mu ne yuri day wan almanuuna dee euh, wala foofu sax jaasi ji la wax maanaam jaasi ji mooy wan dee waaw foofu moom jaasi ji sax la ci namm yuri googu noonu bi maanaam al assaarib waaw kon namul ci jaasi ji namul ci dee waaye jaasi ji mooy wan dee waaye ala kulli halin almanuun moom dañ koy góoral di ko jigéenal mën ngaa wax almanuun huwa wala nga ne almanuun hiya moo tax mu yuri day wan moom jaasi ji almanuun a dee xiina taqfu jamono bu xeñtoo moom dee israhu jeexitam euh, fi subli fi zulamil akbaadi ci lëndëmi res yi subulan yoon boo xam ne laa tura du ko gis moom moom jaasi ji wala laa tura defu ko gis mu ne jaasi ji ñaw na ñaw goo xam ne dee sax bu fekkee moom daa bëgg rey ak nit te mënu koo rey mooy xamul wan yoon lay jaar mu ne bu toppee jaasi ji jaasi ji wan ko aw yoon xam nga loolu moom ak ëppal la waaw mu ne dee bu bëggoona rey ak nit mënu koo rey yoon wi réer ko mu ne jaasi ji moom mën na koo wan aw yoon moom daal na topp jeexitalu jaasi ji rek jaasi dana ko teg ci yoon ba mu rey ki mu bëgg rey moo tax mu ne yuri dana wan moom jaasi ji almanuuna dee xiina eh, taqfu jamono boo xam te ne jamono boo xam ne xeñtu na moom dee mooy topp na israhu jeexitalam mooy ginnaawam fi xulamil akbaari ci lëndami res yi waaw maanaam bu bëggee rey ay nit daal fi xulamil akbaari ci lëndami res yi subulan yon dana ko wan yon bo xamne la 3 turaa ko gis mom de nga xamne de dee ko koon gis ida hawa fi justatin ghadaraha min ba'd ma kana ghasan min ba'd ma kana khasan wala min ba'd ma kanat khasan wa hiya zaka mune ida hawa bu dalé moy bu doré hawa gog moy dal fi justatin ci kaw ab jëm fi go bi mana ala ndaxte baati bati yi mooy xaruf harafi dañuy ñëw di weccante عرف يدين يودن ويتشن تشي القرآن نعرف في دي تكتل بمعنى على في جزء جذوع النخل نمونج كبير وهاي ممكن نم على جذوع النخل مرحبا إذا هوا بدل في جزء من جسر تكو أبجم غادرها ممجلكو من بعد ما كانت جناب من كم جمجة حسن دي تول موي دي بن وهي ممزكا متولن تكو مينار من جاسي جي دي بدل تي أبجم جو قمني بن جملون من جم جو جدي قرنيار moo tax mu ne ida hawa bu dalee fi justatin ci jëmm xaadaraha mu mu jël ko min baadi ma kaanat gannaaw bu mu nekkoon jëmm ja xasan di tool mooy di benn waye moom zaka mu tollantiku muy ñaar waaw zaka dañ koy firi tollantiku mooy mu nekk ñaar rek wala nga ne zaka waye moom zaka muy ñaar wa mushrifu l aqtaari xaatin naxduhu xaabil qasiri jurshun ardu nasa mu ne wa mushrifu l aqtaari mu bàyyi wax jooyu demaat ci jeneen wax mu ne wa mushrifu l aqtaari maa ngi gëñ ci fasiyé way yëkkatiku ci ay wàll al aqtar jamono ci quturun moy wàll wa mom la yàlla di wax in istata'tum an tanfusu an tanfuzu min aqtaris samawati min aqtari gis nga wa al aqtari ma ngi gën ci fasiyé way yëkkatiku ci ay wàll khatin bay aji tal wala fas way aji yëkkatiku ci ay wàll khatin bay aji tal nahdhu yapam wa habil qasir bay aji yëkkatiku ci wet maanaam faar la ci nam wala wet rek mën nga wax faar wala wet ñaar yëpp dañ ko ciy jublu xaabil xasiri bay aji yëkkatiku ci ay faar wala bay aji yëkkatiku ci ak wet jur soon ba aji rëy dënn ardul nasa bay aji dëgër ci sëdditu pooj an nasa mooy sëdditu pooj ñu koy jamo an saaw mu ne nag maa ngi gën ci fas ya nga xamante ne nii maanaam wàll ya dañoo kawe muy fas wu njool la yàpp wa dëgër muy fas wu tal faar ya tamit daldi yëkëtiku yëkkatiku dënn ba rëy sëdditu pooj itam daldi dëgër muy faso baax la daal mu ngi gën ci faso tamit moo tax mu ne mushriful aqtar ak faso ay aji yëkëtiku ci ay wàll xaatin ba aji tal naxduhu yapam habil qasir ba aji yëkëtiku ci wet wala far jor soxon ba aji dëgër ardun nasa sëdditu poñ qaribu ma bayna alqataati walmata baidu ma bayna alqadaali walsala mu ne qaribu ma aji jegee la la nga xam ne nekk na ci diggante toggeekaay ba mooy ndunk ga am na ñuy wax loolu ndunk moo tax mu ne xaribu ma aji jegee la la nga xam ne baynal xataat nekk na ci diggante ndunk la mooy fa ñuy toggee rek fii nit ki di toog ki ngay porté ci ginnaaw fas yi fa muy toog loolu ñu tuddee ndunk wal mata ak ginnaaw ga ma aji soree la nga xam ne baynal xadaali nekk na ci diggante ndong la wasala ak pooj ba waaw pooj ba mooy ci am na ñu koy firee sax cet geen ba waaye pooj ba lañ ci ne moom mooy ginnaaw ak fas wa rek maanaam li mu bëgg mooy fas wi fasu suur la ba nga xam ne nii fii nit ki di togg ak fi muy ki muy togg maanaam digg ginnaaw gi ak ndunk li dañoo jege te loolu fas wu suur mooy mel noonu waaye itam fas wu gudd la ba nga xamante ne nii euh, bopp ba ak cat geen ba mooy pooj ba ak bopp ba dañoo sore muy fas la woo xam ne fas wu gudd la nekkul fas wu gàtt waaye fas wu suur la tamit mom lay wone ne ma aji jegee la nga xamne bayna al xataati nekk na ci diggante ndunk la wal mata ak ginaaw ga wa aydu ma aji soree la nga xamne bayna al xadaari nekk na ci diggante ndong la was sala ak pooj ba saami talili fi dasiin mufamin rahbul labaani fi aminat al uja من ne التليل أجي aji yëkkatiku la ci doq at talil bi maana al unuq fas la woo xam ne doq ga daa yëkkatiku muy fasu siggi بني fi dasiin nekk ci mooy doq gi fi sax ci digganteem ak dënn bi li ko dalee ci xam nga doq ak fas wi fi muy commencé jëm ci euh, fi jokkale doq gi ak euh, dënn bi loolu la ñu tuddee ñooñ maanaam foofu dafa ponkal dafa rëy moo tax mu ne saamit tali la aji ci doq fii da nekk ci ñooñ mu fa amin ba de bu ñu feesal waaw fii rahbul labaani aji yaatu la ci dënn al labaan bi fatxi laami boo ne libaan mooy soow boo ne labaan mooy fi de as sadru dënn bu yaatu la yor fi aminatil ujaa nekk ci way wóori sadit maanaam sadit yi tànk al ujaa mooy sadit tànk yi dënn ba daa yaatu waaye tànk ya nga xamante ni ñoo taawu dënn ba sadit yu wóor la yor moo tax mu ne fii aminatil ujaa nekk ci way wóori sadit al ujaa jamono ci al ujaa ujaayatu mooy sadit yi tànk nekk ci way wóor ci ay saditu tànk rukkib na fi xawaashibin muktannatin ila nusuurin mitla malfuudin nawa mu ne rukkib na toggeleef toggeleef na leen ñoom euh, sëditi tànk sëditi tànk yooyu noonu maanaam al ujaala ci nam rukkib na toggeleef na leen fii xawaashibin ci ay yaxu tànk maanaam sëditi sëditi tànk yooyu ñu ngi leen booleeg ay yaxu tànk yoo xam ne ni muktanatin yére yu ñu nëbb ilaa nusuurin jëm ci mbottam tànk mit la malfoodu nawa mu mel ni lu ñu sànni ci saal waaw wala ci xoox am na nawaa mooy firi saal wala xoox mu ne nag euh, sëddi tànk yooyu noonu ñu ngi leen booleeg ay yaxu tànk yoo xam ne nii ñu ngi ci ñu ngi ci nëbbaale ñu ngi ci dugalaale ci biir tànk yooya wala ci yaxu tànk yooya ay mbotti tànk mbotti tànk mooy nit ki tànk bi boo ko yëkkatee léeg-léeg am na lu cee nekk lu dëgër lu dijji loo xamante ne tey boo ko doon dagg sax nit ki mën na koo bañ a yëg léeg-léeg dox bu métti dana koy def léeg-léeg nit ki dana koy sax màgg rek gis ko ci ay tànkam nga xam ne nii day nekk ci nit ki boo koy dagg sax mën na koo ba a yëg loolu la ñuy tuddee mbottam tànk mu ne mbottam tànk boobu daa dëgër ba mel ni xoox boo xam ne ni dañ koo sànni maanaam xoox wala saal bu ñu sànni xam nga tey tàndarma boo ko lekkoon xoox boobu ci biir loolu la ñuy tuddee an nawaa mooy jamoo ci an nawaatu mooy benn bi ñu koy jamoo an nawaa moo tax mu ne rukkib na toggaleef na leen ñoom euh, sëdditu tànk yooyu mooy al uja ca la dellu fii xawaashibin ci ay yaxu tànk jamono ci xawshabun muktannatin yére yu ñu nëbb ila nusurin jëm ci mbottam tànk mitla malfawdi nawa mu mel ni lu ñu sànni ci saal wala ci xoox lafaza xam nga lafz ci la jóge ji firi baat mu mel ni da nga koo tudd da nga koo sànni waaw malfawd mooy lu ñu sànni yardaxu bil biidi yardaxu bil biidi lxasa fa in raqa ila ruba awra biha naar alxaba mu ne yardaxu day toj day mokkal bil biidi ci àll ya jamono ci al albaydaaw alxasaa jémbaraaya fas yu bu jaaree ci àll yi xeer yi muy dëgg ji xeer yi ndaw yi muy dëgg yëpp da leen di toj dañuy mokk rub fa in raqaa bu yéegee nag ila ruba jëm ci tund ya awraa mu taal bihaa ca ñoom naaral xaba safaraay xoyantaane mu ne bu jaaree ci suuf si ci àll yi mu ne xeer yi ndaw yam fay fekk jémbaraaya alxasaa jamalo ci alxasaatu mu ne xeer yëpp daf leen di toj moom fas yu ci tànkam yooy noonu bu yéegee ci kaw mun tund yi nag mooy montagne waxoon nañ tund sànq arruba muy jamono ci a wala arrubatu mu ne boobaa comme ñoom dañoo kekkee ñoom tund yi mu ne dafay taal ay safaraay xoyantaan xam nga xoyantaan wolof da koy wax jublu ci li ñu tudde ashararatu mooy ferñeent waaye day wax xoyantaan tam jublu ci mooy rab yooyu nga xam ne ci àll bi daana fa am bu lëndëmee rawatina ci jamono nawet bi ngay gis muy naaw di tàkk di génn ay leer mu mel ni dafa am ay leer guy génn loolu la ñu tuddee alxaba jamono ci alxaba xibu الحباهيب موي بن بن يكو جامو الحبا لول لنج نام قوينتان بوبو نون ولاف دي واخ واي نامو تي قوينتان ميغا خاندي جوغي تي سفر لول بوكاي عرب دي واخ دا تي واخ الشرارتو الشرارتو بودي الحباهيب نك بوب موي قوينتان بوب خاندي عرب لا نيكو جامو الحبا مون نك بود ييغي تي مونتان بي داي ген سفر كوم ني قوينتان بوب نون دي ген سفر موتا مون اورامو تال بيا تي مونتان موي تي توندي نار الحبا سفر قوينتان yu yudiiru ali tayni fi malmumatin ila la mu xayni bi alxaadillah mu ne yudiiru day wëndeel moom fas wa ali tayni ñaari kàmbooti xonjëlam xonjël ak garab la moom la ñu tudde almarax noppam ya moom lay fiira moom lay niroole ak kàmboot xam nga mooy euh, li nga xam ne mooy taw meññet bi masalan tey lii di buy wala lii di ak euh, képp garab goo xam ne rek day am doom di génn xam nga dana am lu koy taw loolu la ñu tuddee kàmboot loolu la ñuy tuddee kàmboot léegi nag noppi fas yi dafa niroog kàmbooti garabu xonjal ni nopp bi mel noonu kàmboot boobu nga xam ne mooy taawu euh, euh, meññeti garabu xonjal moom dafa niroog noppi fas wi noppi fas mu ne nag noppam yi nga xam dafa niroog kàmbooti garabu xonjal mu ne fii mal moomatin mu ngi nekk ci bopp buñ dajale fii mal moomatin ci bopp buñ dajale ilaa la moo xëy ni jëm ci ñaari géndeeku te mooy ñaari bët wala jëm ci ñaari bët mooy ñaari gendeeku bi alxaadillaha ci gendeekuy kooba kooba mooy nagu njaay àll mu ne nag mu ngi wëndeel noppam ya firiko te nopp yooyu mu ngi nekk ci bopp boo xamante ni bopp buñ dajale la mooy bopp dëgër boo xam ne dañ koo dajale xam nga fii haamatin man muumatin la ci nam maanaam ñi xasaf man udma fii haamatin man muumatin ñi xasaf man udma maanaam bopp boo xam ne bopp bu yem la mu ne nag nopp yooyu noonu mu ngi ko féddeeral mu jëm ca kanam maanaam ca bët ya nekk dafa tolloo xam nga jëmalewu ko ginnaaw waaye dafa féddeeral nopp ya mu jëm kanam ca wetu bët ya mu ne bët yam yor nag moom façon dafa leer ñaw weex bët yi ñaw ba mel ni bëti kooba bëti nagu njaay àll moo tax mu ne yu diiru ma ngay wëndeel ali tey ni ñaari kàmbooti xonjalam mooy ay noppam mu ngi koy firi fii mal mumatin mu nekk ci ab bopp bu ñu dajale ilaa la moo xay ni jëm ci ñaari géndeeku mooy ñaari bët bi alxaadillaha ci bëti ay kooba allah aatu mooy benn bi allah mooy jamaa bi mooy nagu njaay àll mudaaxalul xalqi raxibun shajruhu muxlawliqu saxwati mamsudun wa a mu ne fas la woo xam ne mudaaxalul xalqi lu ñu dugalante la ci bind mooy fas woo xam ne ni bind ba dafa dugalante mooy li ñu tuddee fas rawaasoo rek rahibun bay aji yaata sajjuruhu ay caafoñam waaw xam nga caafoñ mooy ñaari yaxu sikkim yi foofu ñu daje loolu ñu tuddee sajuru mooy caafoñ mox lawliqu saxwati fas la woo xam ne aji ratax la ci ginnaaw mox lawliqu saxwati aji ratax la ci ginnaaw moom suudun aji rawaasoo la waa aji dëgër la maanaam fas la woo xam ne daal bind ba daa duggante yaxi sikkiñam ya daa yaatu mooy caafoñam ya daa yaatu ginnaaw ga daa ritax fas wa daal rawaasoo mooy fasu dëgër la fasu baax la waaye waa fasu dëgër la ba tey lii yëpp muy wax ay melokaan la yoo xam ne day waral baaxaayuk ak foos aw fas laa sakakun yashinuhu wala faja wala daxiisun waahinun wala chata mu ne laa sakakun déet nooj xam nga nooj mooy boo xam ne tànk yi ci côté euh, oom yi dañuy jegewante nga xam ne buy dox sax ñaari oom ñaari ñaari oomi tànk mën nañoo laalante waaw nga xam ne ni ci suuf gi day yaatu waaye ci omi day jegewante loolu la ñuy firee loolu la ñuy tuddee nooj waaw nooj nga xam ne ay tànkam daal nooj moo tax mu ne laa sakkakun dee teg nooju yeshinuhu di ko ñaawal wala fajaa dee teg rinki mooy tànk yi tamit ubbeekuwut ba sore wante li ñuy tuddee rinki tànk yi sore wala daxiisun dee teg dell dell lu mel ni aw ab ab comme ni ñu doon tuddee mbottam tànk lay mel moom tamit nga xamne nit ku yag dox dana koy am mu ne wala dakhisun det ak del daa ne loolu aw aw feebar lay don mom ci aw fas bo may ci fas lolu ak febar lañ koy tuddee ci aw fas motax tax mu ne wala dakhisun det ak del wahinun ba aji dohot wala chata de xaruk sidit mu ne duwut déll boo xamante daf koy daf koy newal katan wa diko dohot xam nga waha moy firi dohot na wahinun moy aji dohot mom la yàlla di wax ne fa ma wahanu lima asaabahum fi sabilillahi wa ma daafu waaw waxee na la azmu min nii xam nga na mooy firi doxot na mooy néew kàttan moo tax mu ne wala daxi suñ déet ak dellu waahinun ba aju doxot wala chata déet xaruk sidit mooy amul ay sidit yoo xam ne day métti ba di ko ba di ko teree mën a daw di ko gàllankoor amul ab dell tamit nga xamante ne ni yàpp yi dañuy dajaloo euh, ci benn digg xam nga léeg-léeg doomu aadama bi am ko comme ni ko waxee nga xam ne dell lañ koy tuddee yàpp bi dajaloo fenn nga xam ne booy dox sax mën na laa teree dox motax tax mu ne laa sakku kun ak noju yesinu diko ko ñaawal wala faja deet ak rinki wala dakhisun deet ak del wahinun noonu bàyyi ju doxat wala sita deet kharuk sidit deet kharuk sidit moy sidit gu dag gu koy tere daw yajri fa takbur rihu fi ghayatihi hasra taludu bi jaratimi saha mu ne yajri day daw mom faswi fa takbu muy këppu a riixu ngelaw fi ghayatihi ci ay dayom fi ghayatihi ci ay dayom mooy ay walam hasra muy aji lottu nag taluudu muy weru mom ngelaw bi mi saha ci gambi garab gu ñuy wax saha mune fasu da mana daw ba nga xamne buy daw day rombu ngelaw li moo gaaw li fuf day melni lu koy fàdd ba li day mujj sax dem këpp ji ci <clears throat> gambi garab gu ñuy wax saha moy ci jalu suuf yo xamne ni nga dajé nga dajalo ci garabu saha mune fofu lay daanu ji maanaam fas la wax xam ne gaaw sax li ba nga xamne bu ko rombé da koy day melni. dooleem ji day mbëkk ngelaw li ngelaw li lottu du mun dara dem daanu ji ci jalu suuf ya nga xam ne ñoo nekk ca gàmbu garab gu ñuy wax saxaa moo tax mu ne yejër day daw moom fas yi fa takk bu muy nërmeelu wala mu takk bu muy këpp ar ngelaw li fi xaayaatihi ci ay dayom xasra muy aji lott moom ngelaw li taluusu muy wéeru bi jaraatimi saxaa ci gàmbi garab gu ñuy wax saxaa gàmb buñ ko waxee mooy jalu suuf rek eh, jaraatim jamono ci jur suumatun dañ koy wax nag léegi jublu ci ay microbe xam nga lii mu wax moom mubaalaxa rek la mubaalaxa rek la jaraasim mooy jamono ci jur suumatun dañ koy wax jublu ci li nga xamante ni jamono ji mooy microbe mooy jàngoro daal mun nañ koy mën a foofu wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa